jungle assalaamu aleykum wa taala wa barakaatu mbokk yi mbokki taalibe mbokki dëkkandoo yi ñu ngi leen ci waxtu wi ñu toll waxtu wi nag dafa laaj waxtaan waaye waxtaan wi nag moom mooy addiinu nasiha boobu rek la jëm li fi xew démb ci guddi ñu yëgal ma ko fa saasa ci mbetteel ga joxe naa ci ay kàddu loolu ndigal ne ñëpp dal te dellu seeni kër te ne teg su ma ma ma ba ma xam lii fu mu jóge ak nu mu demee bi ma xamee fi mu jóge nag ak ni mu deme dal naa dal xam ne lépp nag ci ñàkk xam la jóge ndax dëkk bu sell bi ku fi nekk te xamoo ki fi nekk xamoo lim fi bàyyi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 waaye nag ku fa nekk nekk fi ñàkk xam bëgg fee nekk di yàq loolu ñi xam ñi fi nekk duñ ko mën a seetaan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 jox arm xorma barab bi lu nit ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk xel lu nit nit nitoo diku nitoo diku war nga xam ne barab bi am na xorma joo xam ne kenn ku ne waxuma la sax ñi fiy nekk waaye ku sax xel dem ci Tuubaa rek jàpp na ci waa Tuubaa nga bokk war nga sa lépp war nga si jiital xorma dëkk bi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 ni yàlla binde doy di doomu aadama waaye nag jóg di yàq se maa tey loolu kooku moom du luñ mën a seetaan ndax maa tey rek la ndax weddi baatu kilifa loolu maa tey la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 li ci am solo daal mooy di lu góorgóorlu euh, fas yéene doon taalibe di jéem a yor jikkoy taalibe di jéem a jox la yey ci euh, am kilifa nga jéem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 ci lépp loo xam ne dana mën di andi ak yàq loolu du nu ku a ñàkk gis di ko di ko di ko di ko sàmm dëgg la da loolu day day day am ñu di ko gis ci ci ci suñu bët. loolu nag mooy mooy li nga mooy mooy li nga xam moo tax des ko mën a ñàkk a faj ne dëkk bi moom borom aar na ko kenn mënu ko yàq man nga yàqu ci àll ba ñëw di yàq waaye kenn mënu ko yàq waaye nag euh, lu xam-xam ni kenn mënu ko yàq itam ki ñu xam ne euh, ci ci ci yàquteem la fi indi euh, nekk fe di yàq kooku kay il faut que dañ koy jëflante ak moom lu yomb la lu yomb la ndax ni ma ko junjoo biig ne ku bëgg ñu jariñu ku fi ji bëgg jariñu tey ak ëllëg dañuy xool ci man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 kon noonu ma ko waxee ku ko def xool ma te déglu danga am tawfeex joo mën a jëriñoo ci adduna ak ci àlaxira ndax man gisuma dara sëriñ bi rek laa gis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 di àgg ci maa tey loolu lu mën a nekk kon nag euh, euh, euh, noonu la demee manes na koo wax waxin bu gën a woyof ndax ku xas dugg ci dëkk bi rek moom eh, am nga am nga am nga am nga am nga am nga xéwal ba noppi ndax dëkk bi wax ju tedd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 te fii ñu ko fii lii ñu santaane loolu loolu gisuñu leneen ñoom loolu mooy seen pexe xamuñu amuñu mën pexe loolu lañ gis te eh, jubluwuñ ci dara lu nit ñi muc waaye foofu la seen xel toll foofu la seen pexe toll te ñoom ñi àdduna ci marché loolu bu ame dafa ma sa xam ci maanaam rek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 sédd nañ ko loolu ci la nekk ba ba ba ci la ci ba mu tàmmee ba tey ci loolu la nekk maak ngi ñoom kon nag bu buñ toogee ba ak lu mel ne ji am ay ay ay nit jóg rek di defe maa tey di wax lu neex def lu neex loolu da dana da faut que loolu moom loolu xew-xew la il faut mu jóge nu kaw.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 loolu it yàlla <laughs> boroomam moo ànd ak moom mënuñ ci dara loola dem ba agsi fii kon loola rek sëñ bi moom mosu leen a xañ ci aw seen ji lu day ne lii day ci we lañ ajo ci moom te te du yàq dara ci diinam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 ñu dellu ci nañ kon loolu ala kulli haal muñ dafa mënut a ñàkk waaye ne raqira na rek nga ñu bëgg fay sa bopp te mënuloo sa bopp dara loolu amul amul benn maanaam amul ben njëriñ kon maa ngi leen di labiré ci ñi nga xam ne waaw man lii dafa mënut a ñàkk waaye dëkk bi boroom bi fi ñëw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 naka jëkk lu ne am na fi lu ne suñu borom diggale na ko jàmm ñi lu ne am na fi te loolu moo noonu lay doxee loolu moo agsi tey loolu dafa mat a xam dafa yomb a te it des ko war a muñ as diggante des ko war a muñ waaw tekk boo ne tekk rek moom suñu suñu borom moom moom mooy mooy mooy mooy mooy lépp waaw te bu yàqul jiwul waaw ñi mu dénk àdduna ji itam borom xel lañu borom xam-xam lañu bari ñuy pexe buñ buñ bu liy accès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 taal suñu bopp mooy nan taal suñu diine taal suñu diine mooy taal nan taal sëriñ bi ginnaaw am nañ tawfeex jure ji am te it kofi fi ku fi ñëw mën naa mën naa nekk xëy na ñëw te leneen andi la fi adduna wut adduna la adduna andi la fi wala leneen andi am nga chance ba noppi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 du yàgg du yàgg lekkoon naanoo moom euh, di mbooloo mbooloo mu lekkoon naanuñu loolu moom ño ñoo kon nag bu ñuy daw <laughs> daw corona yi jëm ci <laughs> jëm ah, kon loolu amul solo loolu loolu da dellu ci suñu bopp jàmbaar ji jàmbaar ju rëy ji fi nekk nañ ko doyloo nañu góorgóorlu delloo suñu bopp du ñu yàqal dara dara yàdduna du ñu ko yàqal xanaa dañu koy defaral kay barkeeloon ko waaye nag balaa loolu am it dafa dool day day wér il faut que il faut que ñu dellu ñu dellu suñu delloo ko yàlla loolu mooy mooy mooy suñu suñ suñu lépp teg ko ci bi loolu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 jox ma dëkk bi ngir ki fi nekk ku ko deful itam lépp ci sa kaw lay dellu ak foo ak foo mën a akki ji ci sa rek lay dellu musiba rek lay dal man mën mën kon nag maa ngi li ba balu ñëq ñi ah, balu àq ñëpp ndax man euh, lu baax rek laa bëgg bëgguma leneen waaw loolu it alhamdulilahi rabil alamina nit nit xëyut sotti waaye nag alhamdulilahi rabil alamina am na tawféex ba ba ba ba mu yóbbu ma foofu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 maa ngi jégalu bu baax a baax eh, wax ji eh, lu ci tàngit dëgg moom neexul waaye fekk na ñëpp jàmm rek laa leen laa laan li ma bëgg sama bopp rek laa leen bëgg li ma yéene sama bopp rek laa leen yéene waaye nag yàlla sa yàlla ko defee noonu yàlla moo ko tërale noonu waaw wu nag yoon wii moo jëm ca mbaax bàjjana yoon wii mooy safaan ba ko war a xam daal jug teel ci jug ca teel góorgóorlu suñu bopp suñu kem kàttan buñ ko defee rek yàlla suñu bopp moom moom mu dimbali leen rawatina nag dangeen ko xam ne am nga tawfeex yoo xam ne suñu borom daa boole Sëriñ Tuubaa muy tawfeex ju rëy kenn xamul fu mu yem kon nanu góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax a baax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 ñun góorgóorlu ñun wéetal yàlla rek te doy lu sëñ Tuubaa ndax lu mat a fàggu tey la fàggul nañu ko lu mat a ñaan ci lu musal fa ñaan na ko ci boromam te nangu na ko waaye nag am nan wartiif masuuliya bu rëy mooy nag nan ko nekkal sëñ Tuubaa la nekkal <laughs> sëñ Tuubaa neexu la nekkal ndax ndax ndax ndax sëñ kenn kenn kenn ci boromam amul menn mbindeef sëñ Tuubaa ñee amul